premier ministre bi defoon na déclaration di xamal que ni euh, dans sa configuration actuelle ak euh, règlement intérieur bi nga xamante ni ñëpp xam nañ ni euh, dañ ko falsifié du dem def fa li nga xamante ni déclaration de politique générale en réponse à cela le groupe benn Bokk Yaakaar wala la conférence des président ñoom annulé nañu li nga xamante ni mooy vote orientation budgétaire bi est-ce que tey ji assemblée nationale wax nañ ko jël en otage parce que dañu am ay querelle politique. mais assemblée bi Pape dañ ko war a dissoudre. dissoudre. waay waay nañ tas assemblée bi man man xaw ma euh, ñi ngi wax naan loi bi xaw ma ba septembre kenn mënu ko fee tas il faut mu am deux ans nangam ak nangam mais man en plus damay adhéré ci li maam Birame Wathie wax le président de la République Bassirou Diomaye Faye il est le garant du fonctionnement normal des institutions su demee ba assemblée ñi war a son fonctionnement normal mooy le président ak euh, ñamu àndal ñoom ñoo koy bloqué mais nañ ko tas cette comment nan lañ mënee comprendre un premier ministre ñu ne na def déclaration de politique générale. Mhm. mu ne moom munu ko def dans les conditions yi assemblée bi di fonctionner parce que règlement intérieur ba. Mhm. reconnaîtrewul premier ministre. te lool du Ousmane Sonko moo ko wax. avant ñuy xam. kan mooy gagné élection mhm. présidentielle deux mille vingt quatre. avant ñuy xam ba xam Macky Sall dina nekk candidat wala du ko nekk boobu tànnagul sax candidat wam ba mu falee premier ministre Amadou Ba la Amadou Ba waroon a dem assemblée nationale pour def déclaration de politique générale. Mhm. député bii di mu Mamadou Lamine jàll saisir président wu assemblée nationale ne ko règlement intérieur bii ñuy doxee c'est un nañ ko defaraat George defe naa George xamu maam bi anu ko doon fàttali keroog. Mhm. le président de l'assemblée ne ko waaw dégg nañ ko. Mhm. ça veut dire quelque part que ni ils reconnaissent qu'il y problème bi fa Amadou Ba waree ñëw Guy Marius Sagna bind ko letre bi génnewaat nañ ko ne ko mënoo def déclaration de politique générale pourquoi parce que règlement intérieur bi nga xam ne mooy fixer les conditions yi nga ko war a defee reconnaître premier ministre mhm. du ma ne reconnaître Amadou Ba mais reconnaître le premier ministre mhm. malgré tout Amadou Ba dem def ko oui àdduna di dox ba premier ministre bi tuddatul Amadou Ba Ousmane Sonko la tudd mhm. ñu ne ko na dem defi déclaration de politique générale mu ne pare na mais bu ñu bëggee ma ñëw nañu defaraat le règlement intérieur de l' assemblée nationale ba mën a reconnaître le premier ministre. Mm-hmm. Mm-hmm. mais su fekkee ne dañu d' accord que ni boobu faux la. parce que li tax ñu d' accord ne faux la. Mm-hmm. mooy pour ñu changer règlement il faut que député yi daje. oui te gisuma fenn fu député yi waxe ne même député yi far ci majorité bi gisuma fenn fu ñu waxee ne ñoom daje nañ. Euh, def nañ euh, plénière ba changer règlement intérieur ba delloo si ji poste premier ministre gisuma ko su amee rek wax ko Pape mm-hmm. amul man dégguma ñoom ñu wax ko amul à partir de cet instant là boo nee Ousmane Sonko mu ñëw def fa déclaration de politique général mu ne du fa ñëw parce que règlement intérieur reconnaître ko mm-hmm. yow waroo bañ Ousmane Sonko ne léegi du ma ko defee foofu ci mbedd mi laa koy defee mm-hmm. parce que mu def defe ko foofu day violer la loi mu defee ko ci mbedd mi sax mën naa bañ a violer la loi parce que su boobaa du ko tuddee déclaration de politique ko neex mais il faut que ñu revenir à la réalité mm-hmm. la réalité tey mooy benn tënk-tënk moo fi am mooy règlement intérieur de assemblée mm-hmm. nañ ko adapté delloo si ci li nga xam ne moo bu ci war a nekk muy post premier ministre bu ci dellu see Ousmane ko amatul benn lay pour bañ a dem mais su fekkee defuñu loolu mais il est dans son bon droit de dire que dew ma parce que mm-hmm. pamatar man Moustapha Diop mi du ma dem fu ñu ma reconnaître wul laa laak nag un premier ministre qui va à l' assemblée ci assemblée boo xam reconnaître ko léegi plus grave plus grave plus grave assemblée nationale osée une de une un débat d'orientation budgétaire programmé depuis ay fan. ba ñëpp jàpp ne bu ñu fa demee ministre de de l'économie et des finances dina ñëw wax lu leer. Mhm. ci fi nga xam ne fa la gouvernement nar a jëm ak sénégalais. ban yoon la ñuy jaar wa ban yoon la ñuy jaar. Mhm. assemblée boobu lànk ne du fi amee. pour pourquoi parce que premier ministre da leen a tooñ. Mhm. waaw mais ñii nag ku ñu yàpp parce que premier ministre da leen tooñ man man man heureusement d'ailleurs je ne suis pas le président de la république mais man pour man booba la waroon a demander l'avis du conseil constitutionnel et tas assemblée bi jàll ci leneen parce que l'assemblée fonctionnetul te le garant du fonctionnement normal des institutions c'est le président de la république dégg naa tey euh, xaw ma dem Momar Thiam wax ko ancien conseiller en communication bu Macky bu Ablaye Wade mais il la République dans Mhm. alors euh, Georges Nesta mi ngi koy fàttali léegi euh, président mooy le garant des institutions euh, ki nga xamante ni moo fi nekkoon di président Macky Sall ba ñu indi ay blocage ak ay jàppante ci boobu la assemblée mi ngi sax doon menacé assemblée nationale di fàttali prérogative yi nga xamante ni yoon ah, moo ko may voilà est-ce que tey jii jotul yooyu les menaces ñu exécuter ko parce que tout simplement ñu ngi li nga xamante ni la bonne le bon fonctionnement des institutions la xam nga débat ñu débat bi nga xam ne moom la ñuy agité boobu ba léegi moom la tubaab di wax des enfantillages franchement enfantillage la parce que amul fu muy jëmee réew mi Moustapha mu ngi wax ne léegi man Moustapha du ma dem fu ñu ma invité wul mais mbir mi dafa yomb démb dama doon waxtaan ak benn waay bu nekk APR mu nekk ko yéen yéen a nga bëgg a yóbbu débat foo xam ne ko mu nekk dama lay jox exemple damay romb fii sa buntu kër nga demee ma ma bañ la faale nga ne ma bañ la faale nga ne ma woo wool suma tur ma ñëw. mooy mm-hmm. noonu la demee. man tudduma ee. Eh. Mm-hmm. président la comment s'appelle le premier ministre jàpp ne que moom tuddul ee eh tamit. am na tur. fekk turam nekkatul si règlement intérieur assemblée mu ne mënuma fa ñëw. loolu yomb yomb naa defar je crois. Mm-hmm. et comme jox na leen délai nee leen d'ici le quinze bu ngeen ko defaree ma ñëw. mais loolu xanaa euh, la majorité lu ñu waroon def mooy. commence ne comme loolu mbir mi demee noonu on s'organise très vite on peut le faire même en quatre jours mm-hmm. plus tout au plus mën nañ ko def en quatre jours organise benn session ordinaire ne ñun dañoo bëgg a changer règlement intérieur bi règlement intérieur bi lan la ñoom ñoo ko dindi ñoo dindi euh, li premier ministre euh, mm-hmm. ak lépp loo xam ne sa ça avait affaire. les dispositions concernant le premier ministre le premier ministre. mais loolu yomb nag constitution baa ngi fi ko jëlewaat indi c'est vrai que constitution bi am na ñoo xam ne dañ leen naan règlement intérieur assemblée nationale ne peut au-dessus la constitution bi nga xam ne en son article cinq moo obligé le le le président de la république le le premier ministre. à venir faire sa déclaration de politique générale. Mmh. mais lu ñu xamul mooy que règlement intérieur assemblée nationale boobu ne fixe euh, le, le, la le constitution le, la, constitution en son article fixul benn délai. Mhm. au premier ministre. Mhm. par contre j'ai vu aujourd'hui que Abdoul Mbaye a dit même quelque chose boo xam ne c'est extrêmement grave. Mhm. parce que moom nee moom bu mu fi ñëwee. deful trois mois six mois la def pour def déclaration de politique générale. oui donc ça veut dire que lui-même avait violé la. constitution avril lañ ko nommé mu def ko septembre. septembre te moom nee na moom nee na Macky Sall moo ko ko waxoon. Macky moo ko ko waxoon ne bul dem assemblée jàkkaarloo euh, député yi baal ba ma tas assemblée. Mm-hmm. am ay député yu bees na door a dem. <laughs> te looloo tax nag mu bàyyi ba juillet ñu def élection yi. te loolu mooy dëgg loolu mu wax mooy dëgg. te loolu mooy dëgg. Mm-hmm. noonu la ko defee aussi donc fii. étant donné que la, euh, le, le premier ministre Ousmane Sonko n'est plus lié avec un problème de délai xam na que ne constitution bi may na ko ko mais bu ne mu ne leen léegi may naa leen ay en délai de quelques jour su ngeen bëggee ma ñëw ngeen defaraat seen seen toogaay defaraat seen taxi ma xam ne su ma fa ñëwee je ne serai pas un intrus je serai je je je serai un invité d'honneur parce que loi moo ma may loi moo ma obligé ma ñëw fekk si leen mais ñoom bu ñu bëggee def loolu. di naan dañuy fayantoo comme ay xale yu ne waaye yaa ma saaga ma saaga la. Mhm. naan léegi dañuy bloquer le débat d'orientation budgétaire loolu député de la de Damas ñu ko fenn. les députés ñoom lu ñu doon xaar si ñoom comme ñoom nee nañu ñoom ils sont une majorité parce que ñoom ñoo fa ëpp. Mhm. les députés de l'opposition la nouvelle opposition. Mhm. mais ñoom waroon nañu profiter seen euh, configuration boobu seen supériorité numérique boobu pour mën a wan ne que voilà premier ministre de l'économie ñëw. ñu ñu nekkal yow tey faw nga wax ñu nag fa ngeen bëggee jëme réew mi maintenant une déclaration de politique générale aussi oui. on en parle mhm. c'est vrai tradition bu ñu fekk fii mhm. mais bu ñu waxante dëgg aussi déclaration politique mu mosul développé benn réew mosul développé benn réew c'est une littérature dañ ko fekk rek ñu mhm. def ko cosaan waaye à part tatu yeeg diw de mën na wax Idrissa Seck moo ko fi njëkkee bu nee na hé kii moom moom génne ay ordinateur Sénégal bu rouge Sénégal vert Sénégal bu rouge bu vert tout ce que les Sénégalais avaient compris pendant plus de quatre heures ou cinq heures de de, de discours dina combattre njublañ di jàppale góor góorgóorlu loolu rek la si gars yi jàppoon. depuis combien de temps on fait les de politique générale fii Sénégal ñu bëri mënuñ laa réciter benn phrase wala lan la changé Sénégal. c'est pas avec une déclaration politique qu'on développe un pays. c' juste parce que le gars dafa am euh, il est nommé nouvellement nommé il doit décliner une feuille de route ñëw wax leen fii lii laa fii laa bëgg a jëmee njàng mi fii laa bëgg a jëmee santé bi et cetera et cetera et des vœux pieux mais sinon <laughs> ben mën nga def la plus grande déclaration politique générale du monde et pourtant échouer dans ce que tu veux faire donc yaakaar naa loolu jarul coow lu bëri coow daal mooy bëgg nañu confirmer wu euh, bëgg nañu euh, invité Ousmane Sonko ils n'ont qu'à respecter les textes mënuñu ko mënuñu ko man keroog mos naa évoqué fii par euh, au début de de de des élections bi euh, Bassirou Diomaye gagné dama ne woon man d' accord ma sax mu ñëw rek daal di tas assemblée na leen may ab diir rek ba gis seen comportement ñoom bu fekkee ne ñoom dañu jàpp ne dañu nekk une majorité daal di ne ñooy di buur di buum yi di def lu leen neex parce que ñoo fi ëpp ñu tas ko le lendemain. Mm-hmm. <laughs> man loolu mooy sama position bu fekkee nag ils sont sages comme des images def comme un député di war def seen liggéeyu député bañ naan di wooy dañuy def des bâtons naa les roues wala dañuy teg ay ay ay ay ay pièges ay ay xaw ma lan ak lan pour euh, nasaxal seen euh, euh, indi indi le pouvoir bu bees bi ay problème mais ñu tas ko dem feneen. Mhm. il a le plein droit de la faire. il a la droit de le faire parce que l'assemblée bi nekk nii nii nii bi nekk nii. c'est elle reflète pas la réalité des 54 pour cent des sénégalais ñoo xam ne ñoo moo fal Bassirou Diomaye. que ça soit la pire eh, assemblée de l'histoire alors est-ce que ñii tey bu ñu demee euh, Ousmane Sonko dem à l'assemblée député yi nekk fii si assemblée nekk euh, la majorité. Mhm. ñeme nañ taxaw ne yow dañuy voter motion de censure pour ñu wàcce la. Mhm. ki nga xam ne dañ ko élire avec cinquante quatre pour cent hmm. ñi topp si moom am ay zéro virgule ñi am ay deux ñi hmm. am ay ay nen kese hmm. yow kooku yow <laughs> war ngaa ay nen yow war ngaa mën a taxaw am xam ne yow amoo benn légitimité nga ne kooku premier ministre bi day ñëw nga ne ko am nañu fexe ku d'accord ak moom na yëkkati loxo ku d'accord ñu kii ñii bu ñu ëppee rek nekkoon premier ministre wàccal ak su gouvernement ban légitimité la ñu am. o mhm. contraire bu ñu naanee def loolu ndax Sénégal da leen jëppi. moo tax nag bu ko neexoon euh, le président Diomaye dana assemblée bi ne reflète plus la la la réalité politique. du Sénégal. donc mhm. nag damay dam leen di fi dindi. Mhm. indiwaat beneen assemblée nationale. bi nga xam ne elle reflétera la volonté des sénégalais. c'est gis nga Pa Georges mi ngi wax ne euh, bu ñu joué woon rôle assemblée. Mm-hmm. mais da ngay fàttale deux mille bi Ablaye Wade falo mm-hmm. dafa fekk majorité wu PS. oui mais majorité boobu dem na ak Ablaye Wade ba avril deux mille un. Mm-hmm. mu door mi ngi falu mars deux mille. même assemblée bi moo fi nekk ba avril 2000 mu door ko tas pourquoi mm-hmm. parce que le le le la majorité PS bi fi nekkoon dañu jouer le jeu. Mm-hmm. ils ont été des députés pendant tout ce temps là. Mm-hmm. jusqu'à ce que Wade tas ko. mais tey soo faloo fal un premier ministre amagul ñetti weer. ñi ne ci majorité bi mel na ñu jëfur. mais le président de la doit prendre ses responsabilités. Ah ouais. que ni euh, comme me dit un de mes confrères là ne ma tas euh, asafurla xoolaat le règlement intérieur xëy na du yomb parce que ce serait un faux. mais mais ce faux là ils n'ont pas besoin de le reconnaître ñëpp xam nañu c'est un faux c'est un faux mhm. Mhm. parce que gisaguma man keroog maa ngi wax ne vendredi Pape Sané maa ngi wax ne man euh, bi may biñ ne ñoom Abdou Mbow ñoom Abdou mbaw dañu def conférence de presse dama doon xaar ci conférence de presse bi Abdou Mbow ci boo wax ne réglement intérieur bi du faux vrai la baax mais waxu ci mhm. ba léegi ba léegi ils ne veulent pas nous dire qu'est-ce qu'il y a. Mhm. à partir de cet instant-là on constate ñun ñun ñëpp que c'est un faux et il faut rectifier. Mhm. bu ñu rectifier on passe à autre s'il y a des poursuites à engager ñu pour ñu engager des poursuites contre ces gens-là c'est tout. et mhm. Wade Wade Wade était encore allé plus loin de dissoudre yemul si dissoudre assemblée rek dafa jël ses dispositions installer des délégations spéciales. ci maire donc Wade dafa une ñu dem élection une nouvelle assemblée installée wu. jour bi ñu. dajee pour waxtaane collectivité locale yi ba xam dañuy yokk seen mandaam déet la benn député waa PRS ñoo ko monté taxaw fële Moussa si yëkkati loxoom ne day proposé amendement ñu ne ko lu mooy amendement bi mu ne tas mairie yëpp ñu ngi noonu mhm. alors euh, ba euh, le le président le premier ministre Ousmane Sonko ñu bëri euh, quand même wala sax ñu féete ci ko jégi jamono ji nee nañ dafa dafa ragal dem jàkkaarloog député Benno Bokk Yaakaar mais la question mooy Ousmane Sonko reconnaissant lan lay ragal ci dem jàkkaarloog euh, ñi nga xamante ne ay député bennoo la pour défendre li nga xamante ne mooy projet politique am. loolu mooy avantage nag li mooy li doon wax sax. naa daal dama jàpp ni que euh, Pape dafa mel ni dañu bëgg génn ci déclaration de politique général dugal ñu ci déclaration de polémique générale ah waaw euh, parce que sa l'a dit tout à l'heure cest dire que tey li gënoon simple. ci député yëpp gën a simple ci sénégalais yi ñu ne ok dafa fo y a pas de problème ñun oui. on est majoritaire on se réunit on demande une section extraordinaire au président l'autorisation de tenir une section section euh, session session extraordinaire au président de la République on le tient dans les deux trois quatre cinq jours mu geex ñu redéfinir lii nga xam ne mooy euh, règlement intérieur woo kii nga xam ne mooy Ousmane Sonko léegi nag à partir de ce moment là nag bu ko woowee mën a du ñëw nag ñu ne voilà léegi kon kii nag. ñemewul ñëw. bëggul ñëw mais à l'état actuel des choses wax fa dëgg yàlla polémique bi wala débat bi ñu bëgg a yëkkati moi je crois que il est plus. li li li li gën a rafet mooy ñu jël ko tegaat ko ci suuf parce que ça nonor pa l'Assemblée nationale ça nonor pa euh, li nga xam ne mooy la démocratie sénégalaise parce que gisuma man à l'heure actuelle euh, lan lañ ci mën a gañe gagner soo ko dem fa euh, Georges l'a dit tout mu def sa déclaration de politique générale qu'est-ce que sa peut rapporter de plus au Sénégalais mmh. sauf que les gens écouteront euh, des députés répliqueront ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite ñi ci bëggoon profité saaga saaga mais Pape ça ça rapporter quelque chose xam lan leen rapporter mm-hmm. Ousmane Sonko demee foofu. Mm-hmm. ñun Sénégalais yëpp danañ gis comme ni may gisee sama téléphone bi mm-hmm. sàcc gi gars yi sàcc depuis 12 ans. xam nga Moustapha Niasse mi def sa déclaration de politique générale en 2000 en gis nañu d' autre chose en 2000 Moustapha Niasse def sa déclaration de politique générale mm-hmm. keroog ku bokk PS nee nga nii say nopp. pourquoi parce que dafa leen détaillel ni ñu saax saaxee réew mi pendant 40 et même si moom ci la bokkoon. Mm-hmm. mais Ousmane Sonko man j'attends de lui que bu demee assemblée. mais mu jaar fa Moustapha Niass jaaroon en douze ans mu wax gars yi détail par détail fépp fu ñu dugal dërëmu Sénégal bu paree nag ne leen fii lañ nar a jëm ak Sénégalais yi te loolu jàpp naa ne lu am njëriñ la tout à fait mais Pape Matar benn benn benn balaa ma kaa fàtte yóbbante de benn suma benn jarbaat euh, Zeynab bint euh, Maxtaar yi mu ne na mu ngi lay jaar mm. keroog woon na ma deux fois pour ma passe la ko mais malheureusement nekk ko fi woon nu mel Euh, <laughs> nu mu mel. Ramadan <laughs> nu mu mel ci lan macha allah tabarakallah boo déggee tur bi rek Zeynab bint Maxtaari. ma laajal la la deuxième question Pape. Euh, non jaru ko kii ziar day. laaj ma ko laaj ma ko laaj ma ko laaj ma ko laaj ma ko <laughs> ndax am na borom kër. bëgg rek yow bëggal rek. kii ziar daal day eh, jege xam naa ki ngay wax de booy boobu day def. Euh, karaté karaté de. voilà moo tax ma ne ko moom na bëgg rek. xam naa xam naa booy bu muy wax bu baax a baax. amul problème yow nag prépare toi kon yow.